Kébémer gars yi ma bëgg yuuxu ba saal bi yëngu ana waa Kébémer ana sëriñ si Kébémer yee bon yee léegi dama bëgg xoolal gars yi dama bëgg a jàllale benn message dama bëgg ñëpp déglu ma nag ah man mooy wax ah jibar waaw jibar bëgg benn gars yi ma bëgg yuuxu ma ma dégg non ma dara déggu ma dara yuuxu leen ma dégg voilà merci merci les gars dama a ñun zéro si Kébémer ah basa basa nit ñi ma ñëw ñun zéro si Kébémer ah ñun ñoo mën a defar dëkk bi dax xam ngeen ni dëkk bi ah dafa changé ramage bi sonal nañu gaay wax leen ramage bi sonal nañu sama gaay kenn mënatu la jàpp xoolal sa woo sa woo mënatoo jàpp ci loxo bi dox deux gaay wax leen wax leen gaay loolu dafa war a loolu xam ngeen kan moo koy jeexal xam ngeen kan koy jeexal DG Ousmane Cissé ak Ibrahima Diallo ñooñu ñoo ñooñu fas sama gaay gaay bu kenn nax fii amul ku fi amul carte xale bi la gën a ndaw mi ngi carte d'identité barke yonent yàlla Muhammad te sama gaay omre omre borom bis bi omre gaay dañ ko bàyyi xel bu baax a baax omre dañ ko jàppale ñu dooleel ko barke yonent yàlla Muhammad xam ne doomu dëkk bi la sama gars yi na leen jàppale suñu doom moo gën ñuy jàppale doomu jàmbur barke yonent yàlla Muhammad gars yi man la jibar bu kebe meer jibar bu kebe meer ma xamul dégg nga ma gars yi yu leen ma dégg ci jibar voilà dama bëgg voilà sama gars ñii ñoom ñoo fas yéene remplacer bu Modou Lamine Thiam ñii ñoo leen fas yéene remplacer DG Ousmane Cissé Ibrahima Diallo ak délégation Pape Diarga yii ñëpp xoolal soutenir Kébémer